jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi ñu am mbégte nag euh, dellusiwaat tey ci télé bi fas yéene dalal kilifa kilifa gu mag ci réew mi nga xam ne kenn dootu ko présenté moo di Mahammed Boun Abdallah Dionne moom nag xam ngeen moom mooy élimaanu jëwriñ ñi waaye nag tey daf fi teewal fii nga xamante ne moo di candidat am mu di le candidat sortant le président sortant bi di Macky Sall moom nag xam ngeen mooy coordinateur lu programme bi nga xamante ne nag moom la euh, candidat Macky Sall euh, teg. tey nag euh, ñu fas yéene seqal moom waxtaan ndaxte xam ngeen euh, def nañ juróom-ñaari at ci boppu réew mi ñuy présenté ab bilan ñi nga xamante ne ñooy xëccandoo moom maanaam ki nga xam moo di candidat am réew mi nee nañu affaire yi daal dara doxul ndaxte am na secteur yu bëri laaj nañ ci gis nañu daal bu ñu xoolee différents programmes mu candidats yi lu ci gën a fës. bokk na ci li nga xamante ne moo di wàllum contra yi lu jëm surtout ci pétrole bi gis nañ tamit lu jëm ci wàllum xëy ndaw yi ñu ngi koy tudd lu bëri bëri bëri gis nañ tamit li nga xamante ne moo jëm ci wàllum justice ndax nee nañ justice bi tëddee nawul njaaxaanaay ñu ngi koy tudd lu bëri bëri bëri wàllum politique it ñu ngi ko ci wax ba am na sax violence yoo xam ne jot na cee juddu ñu fas yéene amal waxtaan ak ki nga xamante ne moo di Mahammed Boun Abdallah Dionne am yaakaar nag ne ñu mën a xuus bu baax ci waxtaan bi ci diiru waxtu monsieur le premier ministre ñu ngi lay nuyu jërëjëf Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu Serigne Saliou di nuyu euh, réew mi yëpp ak seen téléspectateurs yi di nuyu élage Hadj euh, bu patron wu 2STV euh, di leen gërëm ci occasion bi ngeen ma may tey ma waxtaan ak suñu mbokku sénégal yi loolu defe naa ne kontaan ci trop. Ah, di yaakaar it mu nekk njariñu ñëpp. Mhm. jërë ngeen jëf. jërëjëf jërëjëf Mouhamed Boun Abdallah Dionne ñu lay gërëm di la sant bu baax ci invitation bi nga xam ne nangul nga ñu ko biir waxtaan bi nag ma fas yéene ci ànd ak sama naataango Serigne nga xam ne nag ba campagne bi tàmbalee ba léegi moom may gunge ci li nga xam moo di waxtaan ndax moo fi sama consultant Serigne Saliou yow tamit euh, may am mbégte bu baax nag di ànd ak yow ci li nga xamante ne moo di propos de campagne. merci cher le plaisir est partagé aussi di nuyu premier ministre. ci dalal bi ñu dalal fii pour mën a waxtaan aussi ci lu jëm ci njariñu réew mi. jërëjëf Serigne Saliou alors man dama bëggoon Serigne euh, ñu tàmbali waxtaan bi ak li nga xamante ne moo di wàllum koom-koom ndax monsieur le premier ministre dégg nga maanaam ñi nga xamante ne ñooy xëccandoog yéen réew mi nee nañu réew mi koom-koom doxu fi. affaire yi doxul bi maanaam lépp li nga xamante ne sax ab recette la mu ngi ñëw ci réew mi dafay dem bitim réew ndax gis ne sax ci biir ay rapports yoo xam ne jot naa génn que ne daal li nga xam di taux de croissance bi nee ngeen gaa ëpp na 6 pour cent waaye li ci ëpp nag dafay dem bitim réew ndax ça concerne beaucoup plus de secteur tertiaire te ñu ko yore maanaam du ñu ay doomu réew. Euh, li nga euh, junju question bu importante la ndax mi ngi ci débat bi. Mm-hmm. mi ngi tegee ci table ji candidat yi ku nekk di ci wax euh, ci mbiru croissance mbiru koom-koom ak yokkute ku nekk joxe ci sa xalaat xalaat yooyu yëpp nag ñun dañ koy respecté ndax. Euh, defe naa ne unanimité baaxul ci démocratie ku nekk war nga mën a andi sa xalaat euh, loolooy avance loo réew mi wante euh, nañu dellu si rek ci li nga xam ne mooy li ñuy wax dëgg dëgg moom lu important la loolu suñu borom bëgg nañu nat réew mi fi mu toll woon avant président Macky Sall di ñëw ak fi mu toll tey bala ñuy wax ne koom-koom bi mi ngi li muy génne Euh, dañ koy yóbbu bitim réew wala fi lay des day fekk ah. koom-koom bi di den di génne dara bu croissance amul kay bala ñuy wax les fruits de la croissance ni ñu koy séddalee day fekk croissance am bi fi président di ñëw croissance amul woon loolu mooy dëgg dañoo demoon ba réew mi ki fi nekkoon ne euh, bu demee ñetti weer du ñu mën a fay soldi yi yàlla def na ci sutura président ñëw toog andi xarañ andi xam-xam andi ay jumtuwaay taxawal euh, programme ba alhamdulilah tey ñu naan croissance am na nañuy seddoo croissance bu kooku beneen mbir la man defe naa ne dama ingénieur la jàng naa tuuti économie wante ingénieur informaticien la euh, mbirum chiffre ñun la ñuy liggéeyee euh, dama lay laaj rek cent pour cent de zéro zéro la tey kay nga am dix pour cent de un milliard nit may la ko 10 pour cent de un milliard ah cent million la moo gën nit may la 100 pour cent de 1000 francs croissance bi nga xam ne moom la fi président fekkoon li tuuti croissance bi fi nekkoon lu ko doon tiire le tertiaire defe naa ne ki fi nekkoon président di suñu papa euh, maître Abdoulaye Wade bi muy dem croissance bi bi mu fi bàyyi matul 2 pour cent un et quelque la. 1 point 7. 1 pour cent. un point sept pour cent boobu lu tuuti la ci yokkute mais lu ko daan générer li ko doon générer principalement mooy secteur tertiaire commerce njënd meeg njaay mi dem Chine dem Dubaï importé andi sa conteneur jaay loolu du yéegal commerce lu important la mais du tax réew mi mën a am yokkute bu fekkee lépp dañ koy jéegaani ci biti tey croissance bi nga xam ne moom la président Macky Sall andi ba mu andi 7 virgule 2 pour cent cest à diir téeméer boo am at mu nekk ci sa gafaka dinga fa fekk ndax sa liggéey sa ñaq di nga fa fekk téeméer boo xam ne jur na sa téeméer nga làq ko mu jural la juróom-ñaar yu bees euh, croissance boobu tey li koy tirer principalement c'est les secteurs productifs c'est le secteur primaire le secteur primaire mooy lan mbay mooy nap mooy euh, euh, élevage secteur yu mel noonu tey ñoo tiré croissance bi. mais man monsieur le ma jaaxal mooy gis naa ci benn rapport ANSD boo xam ne c'était en 2016 mu ne quand même les deux tiers du secteur de la croissance sont tirés quand même par le secteur tertiaire. xam nga am na tertiaire ak tertiaire. Hmm. mais mais ma ma terminer d'abord ci li ma la doon explique tey mbay mi soo xoolee fa ko président Macky Sall fekk muy ceeb di euh, gerte di euh, oignon di légumes yi di loo ci laal rek lu mu gàtt-gàtt yokku na ñaari yoon yenn saa yi ñetti yoon ba ñeenti yoon loolu sénégalais yee koy bay dañ fay gis ay turc yuy bay ci réew mi gerte amul président teg subvention cinquante pour cent engrais teg subvention matériel agricole su fekkee amoo kàttanu am tracteur matériel bi nga soxla pour bay mu teg soixante dix pour cent de subvention semence cinquante pour cent de subvention nga dem Casamance mu ne foofu cent pour cent semence u ceeb bi joxe naa ko pour booster Casamance. mais loolu moom xaalis bi ñuy dugal ci campagne agricole bi fu mu jëm ci poosu sénégalais yi nga ñëw pêche moteur buy jar un million trois cent soixante quinze mille président ne un million bi joxe naa ko subvention tey da ngay joxe trois cent soixante quinze am moteur bu bees tax teg ko ci sa gaal fukki xale di liggéey bis bu nekk ñuy andi ndax yàlla may nañu ñun ñu nekk am plus de sept cent kilomètres dégg naa candidat bu ne huit cent et quelque ma ne xanaa da cee boole Gambie dafa juum suñu code bii ñu am yàlla dimbale ñu ah defal ñu fi jën xale yi di dem di ko jëli ci biir di andi mais moteur yooyu ñu subventionné moo tax jamais les débarquements de la pêche artisanale ont atteint le niveau actuelle bi nga xam ne ci lañ nekk. xanaa kon dafa juum. parce que bu ñu xoolee les deux tiers danañ c'est maa ngi ñëw primaire beeg secondaire bi ça fait quoi. maa ngi ñëw 15 20 bokku ci déet maa ngi ñëw dama ne la. Hmm. commerce sénégalais yi ci commerce lañ doon yëngatu. avant président Macky Sall di toog mbay mi kenn waxatu ko woon napp waxi nopp élevage waxi nopp président toog ci élevage génne d'abord 5 milliards fonds revolving aliments de bétail kenn jooyatu ko ci réew mi. moo tax tey ñuy wax autosuffisance en mouton léegi de tuuti la ñuy jéegaan yi ci biti tabaski bu amee ndax croissance am na ci yooyu secteur loolu fu mu jëm ci suñu mbokk ay naabe yi ñi ñi ñi nga xam ne ñoo yore élevage loolu xaalis boobu yëpp ci poche yan la jëm ci poche yi sénégalais yi président Macky Sall politique am c'est une politique qui met lom sénégalais au cœur de toutes les stratégies de développement mbay élevage pêche nga pare loolu secteur primaire yeneen am na yeneen secteur productif yu am ah boo jëlee secteur bu mel ne le secteur extractif euh, des industries extractives mines yi mais soo déggaan Sénégal euh, ñu ne or am na boori Kédougou à part suñu mbokk yi liñ ci am ci orpaillage alhamdulilah ñoo koy koy encadré euh, ta defar defal nañu ci ci zone wu est bi yëpp Tamba côté yooyu yëpp ay comptoir d'achat mais Sabadola rek nga daan dégg deuxième mine or ci jamonoy président Macky Sall la amee Mako mais ñun suñu réew nañu xam ne priorité yi dañoo bari loo xool ci eh, eh, dëkku develop bu nekk ci yoonu développement day bari priorité président ne moom xaalisu réew mi budget public bi na ci jàppale les sénégalais mooy secteur primaire bi ma doon wax na ci renforcer l'éducation na ci renforcer li ñu fi tabax ci ay école ak université kenn xamul nu mu toll président lu mu fi fekk ay CUR centre universitaire régional léegi bu ci nekk tey Assane Seck Amadou Makhtar université yu bees yi ñuy créer léegi musique mi ngi sooxe lu bëri quand même monsieur le premier hmm? ministre abri provisoire yi tey la wàllu a aay hmm? ah. hmm? a six mille abris provisoires ma ñaata la woon bi ko président ñëwee bi lu mu fi fekk ah, ma ni man xam naa abri provisoire Gossas laa dëkk jànge naa fu nekk ndax so sama waajur fonctionnaire la woon at mu ne ñu affecté ñu jànge naa Tivaouane jànge Diourbel falaa dalee école wër Sénégal yépp fu ne dëkk naa fa mais ku xamoon réew mi avant xam ko tey di nga xam ne changement am na président moom moo génnee 130 milliards teg ci table ji ne abri provisoire zéro abri provisoire mais classe yooyu yëpp day pour tabax ko ku koy tabax d'abord ay sénégalais xaalis bu fu mu jëm ci poche sénégalais yi mais nga defee ne da nga naan nii rek euh, comme tal moteur rek ca suba ga ñu tabax classe yëpp ñoo ngi koy tabax bis bu ne ngeen gis ministre Mbaye Thiam muy inauguré mais temps la pour entreprise yi tabax ko. loo gis euh, tey ca baax na euh, mais ñëw mel ne tey la réew mi indépendant loolu waxin la ñi fi nekkoon fukki at ak ñaar buñ dindi woon abri provisoire yi président Macky du leen fi fekk loolu dama doon wax rek di expliquer secteur primaire Sénégal président kii def nga ñëw ci secteur minier président dafa ne xaalisu réew mi du pour defar ay société mine société mine ñaata nit a ciy liggéey moom askan wi la koy jox mi ngi koy def ci école yi di ko def ci santé yi di ko def it ci bourse de sécurité familiale yi pour ñi nga xam ne ñoo ëpp gën a néew doole ci réew mi mooy tout le socle d'inclusion et de protection sociale yokk retraite yi loolu kay moom moo gën a euh, jël ah. euh, kii maanaam. monsieur le président man dafa am. Euh, son mais rek moom ma terminer sëñ Saliou ma terminer ci secteur bi nga xam ne mooy tertiaire. commerce ak service yi àdduna li muy doxee demoo fi ci benn réew réew ma moom compagnie téléphone yi bu ko defee rek service ya du dox benn réew ci àdduna gisoo fi le service par exemple téléphone cellulaire yi technologie bi muy avancé ñu war di ko renouveler tout temps trois g suba ñu ne 4G cinq g léegi la ñuy wax gisoo ko ci fenn ci monde bi réew ma ñëw nationaliser tous ces secteurs là donc da ngay créer environnement bàyyi secteur privé bi ñu am technologie bi ak investissement lourd yi mu soxla ñoo ñu ñëw investir. à la seule préférence le secteur privé se plaint beaucoup tey monsieur le premier parce que ne leen préférence nationale bi ñu wax amul. mais mais ma ne préférence nationale kay. mi ngi tàmbalee ci bala ngay wax secteur privé mi ngi tàmbalee ci peuple bi. kuy joxe bourse de sécurité familiale kay loolu préférence nationale la. pour soo xat déet maa ngi ñëw. Euh, loolu c'est de c'est de la de l'assistanat. déet ma ne. vous rendez beaucoup plus. de l'assistanat c'est pour couper c'est pour couper complètement les les les niches de pauvreté qu'il y a dans ce pays ndax bu ñu la joxee bourse de sécurité familiale man am naa ay mbokk yu ko am sa waa kër obligation la ñu jàng ba am fukki at ak juróom-benn ca daara ja wala ci école bi. ndax xam-xam mooy génne nit ci. waaw mais monsieur le est-ce que loolu réellement actuellement ñu ngi koy appliquer sur le terrain parce que man aussi dama ci gis bourse yoo xamante ne nii dès l'instant que nit ñi buñ ci jotee rek immédiatement il font le partage entre dans la famille. ce qui veut dire que objectif bi nga xamante ne moom la ñu waroon a def ci bourse yi finalement def ñu ko parce que pour man objectif bourse yi comme ni nga ko waxee léegi c'est de permettre d'abord aux enfants yi am yenn âge yi ñu mën am ñu mën a faju mën a jàng en même temps aussi mën a dimbale ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kër yi ñu am ci loo xam ci la ñuy ci la ñuy yëngatu de telle sorte que kooku bu subaa dootuñu sax soxla di ko joxaat beneen bourse de sécurité familiale nga xam moom dina war a mën demal boppam mais est-ce que réellement y a un travail d'évaluation qui a été fait pour mën a xam ndax bourse yi ndax jur na loolu wala ndax jurul jurul loolu. Euh, sa sëñ Saliou foo dëkk. man dëkk dëkk. man ci Caajaay la dëkk ak Thiès. laajal ña ko fay am. Mm-hmm. gis nga dañu non seulement def nañ travail d'évaluation bi avec aussi les partenaires techniques ñu dimbale ñu ci xam-xam bi ñu booleeg suñu xam-xam bourse de sécurité familiale danga koy jàpp comme un complément de revenu en milieu rural gis nga du koo xam ne dangaa nekk ci ndóol total ba amoo amoo sax loo mën a jëndee Euh, loo lekk day ñëw renforcer plus de cinquante pour cent day ñëw renforcer comme un complément de ressource ñi nga xam ne dañoo nekk ci jafe-jafe ndax dañu ne ni ñuy xoolee pauvreté day extrême pauvreté dañuy xool ne kii li muy fande xëy na moo ëpp maximum benn repas bi sax am na difficulté ci période yenn yi parce que soo dëkkee tey Euh, euh, biir Mbar dans le euh, Gossas am na looy bay am na looy dunde am nga loo xam ne yaa ngi ci yëngatu wante loola mateeru matewu la pour nga mën a génn ci jàppale sa waa kër ñu jàng jàppale sa njaboot pour que au moins ñuy ñuy lekk ni mu waree am santé donc bourse yi day ñëw complété loolu du nit ki bourse cent mille bi lay dundee at mi déedéet day ñëw complété la mu yoroon ñu dollil ko pour mu mën a génn ci baatam génn dignement loolu la étude bi wone et ñi koy jot moo tax du lu ñuy paacoo de hmm, étude bi dafa génne ay cas soo bëggee ma ma yónnee la ko ci sama téléphone fii am naa ko mm-hmm. Euh, li mu génnee mooy di nga gis koo xam ne daawu ci génn tey bu jotee borom kër jigéen ñi lañ koy jox bu jotee bursam su waxee ak euh, jëkkëram ñu dem au moins jënd seen saaku ceeb booleeg la ñu yore woon période de soudure yu metti woon yi dëgg ci at mi nga xam ne foofu vulnérabilité bi ci la ëpp bourse yi rek la na yooyu problème yépp moo tax ñi koy jot wax dëgg yàlla kontaan nañu monsieur le président xam nga bu ñu waxee croissance croissance mooy yokkute maanaam koom-koom bi yokk na koom-koom bi su yokkee dañu war a gis ne taux de pauvreté bi normalement dafa war a wàññeeku waaw mais li ñu gis ne entre 2011 2016 ah. que taux de pauvreté bi jógee na six millions trois cent jëm six millions huit cent loolu lu ko expliquer ma ne population bi déjà dafa yokk fii ah. population bi tous les vingt cinq ans mu yokk donc il faut ci chiffre wax ma pourcentage foofu ngay xool en relativité po taux de pauvreté dafa wàcc près de cinq points loolu moo am bul bul jël chiffre dans la absolu. non moi je je l'ai je l'ai donné la banque mondiale. déet waaw da ngay xool taux de pauvreté bi 1960 ñaata ñetti million boo génnee chiffre ña ca pauvre ñetti millions yi boo ñaata yoon la la yokku en ba 2000 ñaata yoon la yokku. Euh, nguur gi fi nekkoon bi mu ko jëlee ak bi muy dem douze ans après ñaata yoon la la la la yokku c'est ay pourcentage c'est nombre de pauvres sur la population totale benn rapport mu ngi wax ba tey bu 2016 bu ANSD parce que man damay préférer am fu ma tibbee mu ne quand même lii di askan bi day yokk chaque année de 3,8 pour cent te gis nañ ne boobu temps également bu ñu jëlee pourcent euh, de croissance bi daggat daggat ko maanaam gis nañ ne population bi dafay jël que maanaam 2 pour cent rek lay mën a jëfandikoo ci taux de croissance boobu du coup dafay impacter ci population yi maanaam pauvreté boobu bi nga xam ne da koy dégrever aussi parce que population bi day yokk suñu population mi ngi yokk alhamdulilah du menace de opportunité la suba pétrole a ngi ñëw ñun li ñu soxla ay bras pour liggéey suñu dëkk population bi yokk buñ ko ragal pétrole la ngi ñëw mu nekk ay ressources yu bees ci réew mi réew mi ci boppam mi ngi dox économie ma ngi dox tey ci suñu suuf rek suñu suuf dépassé wuñu vingt cinq pour cent suufu Sénégal yu ñuy utiliser ñu ci mbay ci ndëkkal yi et tout lu mat soixante quinze pour cent suuf si mi ngi ne yàmbalang kenn utiliser wu ko nañu président moo tax mu créer ay conditions pour que développement rural la ruralité am te loolu pour mu am soo demee ci ci ci ci gox goxaan yi ci biir soixante quinze pour cent yooyu tijjeeku te kenn utiliser wu leen mais lu leen di utiliser ay piste Ila Touba fii ak 10 ans na nga fa romb fii ku fi jógewaan man de bi ma nekkee xale soo jógewaan fii faanoog gii ma dëkkoon di dem Almadi boo paasee route àll la àll la woon ba ba ngay àgg Almadi boo duggee boppu Almadi ca fond ba Almadi la amoon mbarak su fa nekk nekkoon euh, ab chinois fa daan jaay ay neem daa ngi koy fàttaliku dëkk bi yëpp li tali structure tali wala cours d'eau wala chemin de fer États-Unis ni ñu ko defaree c'est le chemin de fer bi jógee est jëm ouest la rue est vers l'or c'est les infrastructures qui amènent le développement moo tax président di investir li muy investir ci infrastructure yi autoroute muy defar na nga ko seetlu est-ce que day jaar ci dëkk yi day tijji réew mi parce que population bi suba dafa soxla aussi des habitats yu bees piste yi ci àll bi p PUDC bi mu teg mooy tax mooy promouvoir la ruralité mooy tax suba population bi di yokku certes mais nit ñi am fu ñu bay am ay espace yu bees yu mën a dëkk et mais ñu ngi naan maanaam ces investissements de prestige yéen a ngi koy def alors que y a des priorités ailleurs. mais luy prestige. ah maanaam comme yi ngeen def nii ay terre ak ay autoroute fii. mais ma ah? bi mu ngi mu ngi yëngatu bi mu ngi yëngatu ñu ngi yëngatu de mais euh, euh, Cheikh. waaw dem Bangkok. jógeel wàccal aéroport bay jëm sa hôtel ñaata waxtu. dakaar fi mu toll mi ngi ëpp na ñetti million région bi ci ëpp na ko sax mais mi ngi jëm soo demee deux mille vingt cinq rek wala deux mille cinquante deux mille cinquante dafa nuru lu sori soriwul deux mille cent dafa nuru lu sori deux mille incha allah ba mu ñoo ngi àjjana waaw <laughs> mais deux mille cent ñi juddu ren quatre vingt deux ans euh, quatre vingt et un ans la ñuy am ñi juddu di dinañ fekkee deux mille cent am quatre vingt et un dañu leen di loolu nag la président ma ne ñeneen ñi gars yi fi nekk. waaw gis nga prestige déedéet. président soo fi ko yàlla teg jaay def xelu ci sénégalais yi ñu fal ko mu toog fi yàlla na faluwaat pour continuer liggéey bi mu sumb ci réew mi. loolu sa sa sa cadre avec liggéeyal ëllëg. mooy liggéeyal ëllëg président non seulement day jàppale sénégalais yi nekk fii mais day teg ay briques. pour sénégalais yi ñëw yi suba te loolu deux mille cent dinañ ëpp cinquante millions le fii lay nekk ci presque u dakaar bi mur bi président tabax dolli cent vingt cinq kilomètres boo doon wër région de Dakar tabax ko mur cent vingt cinq kilomètres la boo doon tey tey région de dakaar moom rek ci élevage moom rek mur ba mu defar dolli mooy dolli mur ba donc <laughs> espace dolli rek mooy région de Dakar loolu huit million nit bu ñu fi dëkkee ku yeewu suba euh, euh, route de Boune war a ñëw liggéey si Sandaga wala marché HLM wala building bala ngay agsi boutique yi commerce yi tëj boo nekkee fonctionnaire bala ngay ñëw hôpital fii faju euh, docteur infirmier nga wala sage bala ngay agsi fekk ah 18 jot moo tax président ni damay defar TER TER bi du luxe pour banlieue bi la 14 gares nga déparé fii dem gare de Dakar àgg premier Pikine buntu Pikine 7 minutes mais parce que ña fa nekk il faut am nañ droit am ay sénégalais la ñu dëkk Pikine ñëpp dëkk ñu pour Dakar plateau kay pour jege Sandaga wala marché HLM dëkk HLM ñooñu dañu am tam. un droit à l'accès universel à la mobilité. bi bëri na problème bi nañ leen tëj foofu. et aussi est-ce, que aussi. Euh, le, le, le, prix aussi accessible. Mm, non euh, le prix. appel d'offres international lu mat plus de vingt quatre entreprises ñëw soumissionné on a pris le meilleur prix au meilleur service. Euh, prix na nga xool TR boo ko jëlee li ci cher. du saxaar yi saxaar yi président quinze raam la jënd. non mhm. pas man je parle surtout transport bi laa bëgg maa ngi ñëw rek par boppu saxaar bi raam bi 15 pour départ pour banlieue bi BRT it noonu parce que TER bi ouest la jóge jëm est BRP jóge nord sud di jaabante ndax waa Géejawaay ak ba Tivaouane Peulh région Dakar yépp ñu mën ko décongestionner nit ñi am tam état bi respecter leen leur droit à la mobilité ci service universel yi donc ni nit ñi di soxlaa courant ndox noonu tam la ñu soxla di jaabante pour def seeni activité prix bi la lañ cay wax loo bi gën a ëpp lu mu jël mooy te benn yoon nga koy def mooy plateforme bi tubaab yi ba ñuy defar Dakar Bamako mu am 100 ans booba xëy na euh, réew mi xalaatoon na ne am na yeneen priorité euh, loolu de mais loolu cent ans waa Mali fii li ñuy amee seen marchandise man de ba ma nekkee gone moom laa daan jël arigo ni dem Gossas ña dëkk Kaolack noonu ña dëkk Tamba noonu ndax ay tali amu fi woon ci réew donc yu bari prix boo ko déggee le c'est relatif backbone bi nga xam ne mooy terrassement yi ñuy def parce que train buy daw 160 kilomètres heure dafa soxla fa muy daw dëgër nekk grand écartement électrique ñu def ci ñaari voie loolu plateforme boo ko xasee ba def li ci des euh, euh, euh, train vagon train moom ak camion vingt camion vingt tonnes ñoo yem prix loolu loolu du du jafe-jafe bi donc nit ñi buy yokk da ngay jëndaat ay wagon rek donc il faut que nit ñi di xam investissement structurant yi nga xam ne moom la président di def da koy def pour askan bi du ñu fi bàyyi ba nga xam ne suba kenn dootul mën a dem kenn dootul mën a dëkk dëkk bi kale loolu la président di liggéey liggéeyal tey liggéeyal ëllëg. alors monsieur le premier ministre yéen a ngi wax également benn point bu important parce que aussi askan bi mu ngi yokk. Euh, pendant ce temps aussi Serigne Saliou effleuré na ko sànq lii di taux de chômage bi mu ngi gën yokk et aussi gis nañ ne entreprise yi nga xamante ne maanaam ils sont dans le secteur informel toll nañ ci est-ce que dëkk bi nga xamante ne bëgg na dem dans les rampes de l'émergence wala vers les rampes de l'émergence est-ce que mën na sukkandiku ci benn secteur informel boo xamante ne c'est évalué à 97 pour cent. non euh, euh, c'est pas incompatible. Hmm. mbiru hum. euh, secteur privé il faut. des grands capitaines d'industrie ci kaw am na fi am na fi de. yéen leen di jàppale. mais marché public yi tali koy defar kat moo koy defar sénégalais yi laajal waa CSE CDE euh, ñoo fi nekk di. aussi la dette aussi. xaaral ñu tontu lii. <laughs> Euh, dette intérieure sax concept bi leneen la. Hmm. waaw loolu c'est c'est pas li nit ñi di wax. dama ni tali yi ku koy defar ñanay liggéey ci tali yi ay sénégalais ñoo ci liggéey di ci ku weer camion yi ngay gis ñuy jëndi beton beeg di defar di di couler ay sénégalais la di ku moom ku moom même TER bi TER bi soo jëlee li ma wax ne jël xaalis bi ci suuf béton ba fa nekk ko moom carrière yi ay sénégalais xaalis bi fu mu dugg ci poche sénégalais yi ñu ci doon liggéey ay sénégalais. bërki démb rek bi président di def mise en service bi train bi ci boppam ki ko dawal un sénégalais un jeune donc gis nga confusion dafa yomb il nous faut des grands capitaines d'industrie ça c'est la grande industrie qui transforme et on en a mais des autoroutes comme Ilatuba yu chinois ñoo ko defar te ñu ngi leen di reprocher aussi de manque de transfert de compétences aussi ma ah. ne nañ def ndànk soo jëlee Ilatuba ku ko financé chinois yi. très bien mais dañoo booleeg entreprise loolu lay Exim banque di soo demee Éthiopie. c'est le modèle de financement. ma ma nga boo demee Afrique du Sud bu fa Exim banque sax doon dem ku koy def États-Unis Exim euh, banque ba fa nekk US Exim banque booy jënd tey benn avion Boeing mu ñu financé la boo nee Airbus duñ la financé ñun ñoo ngi ñaan yàlla ak suñu pétrole dem ba am suñu Exim banque. di gunge suñu ay capitaine d'industrie ni ndëkk yëpp di def turki yi noonu mais chinois bi bu ñëwee ne day defar Ila Touba tali bi ala kulli alin beton la ak basalte ak la ca ne ca biir fii ci Sénégal la jóge te ay entreprise sénégalaises ñoo ko koy jaay. waaw mais du ko importé. ciment bi ñu koy kulee ku koy defar suñu cimentier yi fi mu nekk secteur ru bi. mais cimenterie yépp dañuy li ñu gañee ci xaalis dafa nu mu toll loolu tam croissance la bu fi des mais kan moo defar ciment bi ñuy defaree Ila Touba ak euh, Mbour Fatick Kaolack suñu cimenterie yi chinois yi donte seen banque daf leen accompagner seen réew mais facture yooyu dañ koy fay ñoom sénégalais yi moom ciment euh, euh, cimenterie yi fi ne fer bañ fay couler fu ñu koy jëlee. dañ fay mën sa importer benn naviru ciment donc il faut ñuy suñu duggee ci détail rek gis ne gars yi li ñuy wax ci suuf la daal. tax président ne foog cimenterie fay Serigne Sall lay bàyyi nga parce que wax na ko keroog club de Paris. waaw exonération yi jeex na quoi. mais président kay sax d' abord moom dafa président dafa génne taxe ciment teg ci taabal ci. Hmm. Ah, loolu kay tàmbale na. waaw monsieur le président pour financer l'habitat social. tey su ngeen doon def seen seen bilan gis nañu am na ay jéego yu. am solo yoo xam ne def nañ ko dans la production agricole mais est-ce que réellement dans le domaine de l'industrialisation est-ce que foofu sentiru leen ne am ngeen fa vraiment un échec. déedéet mukk foofu nag man mooy sax sama secteur. Hmm. ndax nekk naa fi juróom-benni at directeur national de l'industrie liggéey ONUD yi nga xam ne mooy yore industrie ci monde bi nekk ci directeur bureau Afrique et LDC les les PMA les pays les moins avancé di gérer affaire industrie ci àdduna bi ci côté Afrique ak Samoa dëkk yi nekk îles yeeg yépp industrie ñaari facteur a koy doxal maa ngi woon ci capitaine d'industrie yi mhm. après y a les PME ak la micro entreprise qui vient micro entreprise moomi 97 pour cent yi ngay wax mais loolu c'est très bien parce que ça montre le dynamisme de l'entrepreneuriat sénégalais te ñu ndaw ñooñu ñooy génne ji suba les grands capitaux. à la seule différence ils ne bénéficient pas également du loolu président am na lu mu ci andi. indi na fonds na fonds six. mooy la caisse des marché publics mais gis nañu lépp am na problème. bu président wax na ko pour jéem wax ko déet dinaa ci dellu si la caisse des marché publics. ah fii ci caisse de dépôt et de consignation yow artisan nga gañe nga marché pour tabax ay salle de classe wala yooyu marché public nga dem ñu jox la 80 pour cent nga dem liggéeyi. parce que état bi lay fay après bu la état bi waree fay état bi récupéré waat xaalisam loolu am nañ ciy solution te dinañ ko gën a doxal mais suñu ñëwee ci industrie industrie bu mag pour mu dox pour sa réew mën a capter les flux de délocalisation industrie yu mag yi ñëw d'abord li ngay njëkk am les infrastructures de soutien au secteur infrastructure de soutien yi mooy la man am naa usine maa nga tugal wala Chine Chine il y a dix ans SMIC bi cent dollars la toll woon daanaka presque yem ak ñun monde bi yëpp dem fa ñu ne c'est lu l'usine du monde boo am usine booy defar fa ngay dem ndax ah pièce booy defar wala t-shirt wala yooyu mënoo cee fay yenn salaire yi ndax kon doo ci génn prix de revient bi tey Chine commencé développé dugg ci li ñuy wax. yeneen secteur à plus haute teneur technologique ndax ah léegi le SMIC daanaka a ëpp na 1000 dollars donc boo fay defar ay blue jean doo ko mën a jaay ñoo ñu ñu daal di jóg ne dañuy wuti feneen fu ñu dem damay joxe fii benn exemple 1974 ONIRI dafa créer modèle les zones franches industrielles 74 tànn ci ñaari réew ci Afrique. Sénégal ak île Maurice ne ñoom lañ fa lañ koy expérimenté suñu bos bi muy tëj en 99 c'était créé par une loi pour vingt cinq ans la loi 7405 du ma ko fàtte mukk cinq ans vingt cinq yi ba muy jeex juróom-benni entreprise ñoo fi nekk fii ci mbaaw juróom-benn kese Île Maurice dem ba li may wax nii ci Chine mujj ko dab ndax usines yi baree baree bari mu nekk la champion africain ci textile di exporter Europe fu nekk te soo jogee jëlee bateau Île Maurice jëm euh, côte Europe yi six semaines la juróom benn semaine nga jël bateau jóge ko fii dakaar pour exporter juróomi fan yaa ngi Portugal lu tax luy différence bi les parcs industriels Île Maurice 74 banque de développement de Maurice dafa jël xaalis investir créer 100 000 mètres carrés de batiment construits da ngay jël sa usine Europe textile ba nekkoon Europe yëpp taxul ndax salaire yi Europe yi ak syndicat yi ak coow li gars yi dañoo wekki seeni machine dem dugal taal mu tàmbalee dox ñu ko tàmbalee liggéey loolooy différence bi d'abord les infrastructures de soutien moo tax président ne pour industrialisation d'abord 25 milliards a ngi nii ci tabal ji damay dem créer le parc industriel de Diamniadio moo tax gis ngeen fi usine boo xam ne mi nga woon Rwanda tëj ñëw indi fii di créer 10 mille emplois moom mooy loolu yu ngeen di gis télévision président toog ak ay des jeunes fii de la banlieue ñuy ñëw mais loolu ñuy ñëw hmm. ñoo ngi koy jaayee Macy's États-Unis et compagnie ñun nag li ñu bëgg mooy délocaliser industrie yooyu am na suñu réew am na coton renforcer encore le secteur industriel pour que am ñu am ay unité de tissage mën a am des unités de filature de tissage de de d'ennoblissement du tissu pour que suñu ay input suñu ay industrie yi nga xam ne sénégalais yee ko moom genre NSTS ko ICOTAF demain qui reprend et cetera mën di jaay chinois yooyu chinois yi di defar suba benn sénégalais it monte lu ni mel am na fa déjà Sartori Sen moom it mën na di jël li ñuy délocaliser ndax valeur ajoutée bi ñu jël ci suñu wàll mais du ñu exporter. monsieur le premier ministre dégg nañ quand même keroog club de Paris bu France président ne mu ne dina gën a ibbeeku. maanaam investisseurs yi ngeen di wax yëpp ñëw mais ça fait peur au secteur privé parce que ren ñoom aussi bëgg nañ quand surtout li nga xamante ne moo di la protection Serigne Saliou xaw na ko junj sànq mu jëm ci li nga xam moo di bor bi ndax non seulement ñoom ñi ngi ñu ngi raam presque à quatre pattes parce que nee nañ bu ngi leen yoreel xaalis balaa ngeen leen di fay euh, dañuy daw ba bëgg a dee ba pare ngeen bëgg a ibbiwaat multinationale ñu doggali leen lan ngay hmm. damay joxe benn exemple dinaa ko tudd. un vrai capitaine d'industrie Babacar Ngom xam ngeen ko Sedima. si Babacar Ngom nee na cinquante mille la tàmbalee xaw ma cent mille jëndi poussin tey mi ngi yore ay milliards société am na plus de quarante milliards de chiffre d'affaires at kooku lu muy jaay état luñ ko yoreel zéro franc état day jëndi ganaar moo tax ngeen bëgg ubbi quand même. maa ngi ñëw rek maa ngi ñëw. secteur privé am na secteur privé ak secteur privé. Babacar Ngom état lu mu ko yoreen zéro yow boo amoon sa di loolu la état di yoreen zéro da ngay defar li nga xam ne moom la réew mi soxla ñun kay ñi ñuy contracteel mooy les investissement structurants ñiy defar tali ñiy defar euh, li état ay ay université ki yooyu xanaa mais réew mi. ñaata possibilité le secteur privé bi am man dama koy wax toujours puso puso dañ koy importer mais kër gu nekk ñaata puso fa ne mais loolu nga tijji société buy defari puso secteur privé bi opportunité yi bari na gaa yaa ngi ci it moo tax ma ne secteur privé bi bu leen kenn sànni xeer suba ba ngoon ñaata emploi lañuy ñuy créer mais mm-hmm. président ci bi mu toogee léegi quatre cent quatre-vingt-onze mille emploi on été créés muy daanaka juróomi téeméeri junni ay emploi ñoom lañ créé da ngay dem ci sit statistique yu ministère de du travail ndax bu ñu la jëlee contrat à dure indéterminée wala déterminée da dangay dem inspection du travail signé mais dañ koy statistiques yi dañ ko ciy dugal mi ngi ci sit yi ñëpp gis ko réew mi mi ngi créé à peu près depuis ba ci 2015 moyenne de soixante dix mille emplois l'an bi PSE toogee 2014 2015 léegi ñoo ngi ci rythme quatre vingt mille emplois mais du fonctionnaire yi ñoo du ay du ñuy fonctionnaire secteur privé bee koy créé. Mm-hmm. te loolu li may wax ni quatre cent quatre vingt onze mille emplois yi en net la création d' emploi moins destruction d' emploi. mais ci diggante boobu entreprise privée ba dañuy tëj parce que amuñu xaalis. mais entreprise ñaata a tijji mais ma bu ñu nee état bi. mooy de ak secteur privé Babacar Ngom secteur privé la bokk. bari na ci ay morom. mais lui il se sent menacé ma ne déedéet ku ko menacé. ah l'ouverture de la la filière agricole ku kenn ouvrir ko. Ah. fii benn elde bu dend la xaw ma ñun duñ. ah y' a un projet monsieur le. déedéet loolu <laughs> projet que bu ñu bu ñu annoncé à Sandiara. ma ne. Hmm. ma projet benn autorisation amu fi benn kenn fii ci réew mi. ñuy hmm. filière avicole bi dañ koo protéger. Ah, comme ni ñuy protéger mais président du ñu fi doo leen dégg ñu ne campagne wu euh, bu campagne wu soble génnee ñu ne soble du dugg ci réew mi mais loolu dañ koy def di ko defal pomme de di ko defal volaille bi di ko defal secteur yi nga xam ne sénégalais yaa ngi ci dama ni nañu xool dëgg ku waxal dëgg yàlla xam ne président c'est hmm. un patriote un nationaliste mu ngi liggéey secteur privé bi nag dama ne ku xool ñoo ngi liggéey di gañe xaalis di embaucher di recruter. fu mu toll yorelu tamit benn xaalis secteur ah, privé. non attendez dama dama laa laaj rek. ñi nga xam ne ñoo ngi ci secteur mais euh, secteur privé dafa bari de société de transport yi du ñu bari na ci de mais état bi day dugg ci ci car di fay. donc te ñoo ñëpp lu leen yoreel donc économie bi mi ngi sécréter li mu war a sécréter di tourner ñi nga xam ne nag dans le secteur spécifique du BTP dinañ toog parfois ci programmation trésorerie bi am lu ñu la yoreel mais ñu fay la parce que parfois tous ces grands projets d'infrastructure ils sont financés par euh, les euh, les bailleurs de fonds BOAD dinañu financer Union européenne tali yi mais décaissement yi da ngay yónnee papier mu yéex. mais souvent dina am ay laps de temps yoo xam ne yow sa bor di nga mën a cumuler mais société yooyu société yu dëgër lañ dinaa la wax dara Cheikh. après ma laaj la dara. Cheikh dinaa la wax dara. waaw entreprise du tricher. économie li ñu koy woyee loolu mooy le secteur réel tricher xaju fa c'est-à-dire benn niveau bor boo ko yoree te attanoo ko da ngay tëj benn société bu mag daan fii monsieur le premier ministre. ba hmm. taxaw Serigne lu tax ngeen changer seen année de base. parce que économie Nigéria mooy première économie africaine non. ko jëlee quatre-vingt-dix-neuf ma ñëw rek ma ne. waaw Nigéria léegi romb na Afrique du Sud lu ko am changement de base parce que booy liggéey ci koom-koom da ngay xam koom-koom bi d'abord noo koy natte bari na fi secteur yu bees yoo xam ne suñu économie daawu ko jël. da ngay jël par exemple la création tey euh, même France ak États-Unis yëpp dañuy changer base. est-ce que ragalu leen kanam seen taux d'endettement bi mu il faut c'est un faux problème. àggu mais 65 47 ngay wax 60. xoolal damay ñëw rek xoolal non déglu ma gis nga waxu dette hmm. yooyu ay détails la dinaa ci dellu si mais changement de base bi d'abord changement de base tous les pays du monde le font muy Russie Chine sax dañuy changer base parce que sa population day yokku technologie bi mi ngi dugg am métier yu bees secteur yu bees mais secteur yooyu il faut sa économie mën koo tibb dugal ko ci PIB bi soo demee Europe l'emploi euh, euh, social n'était pas bien pris en compte ay France ak yooyu parce que euh, du ñëpp a am seen doom mën a dem crèche dangay toog am étudiant boo xam ne dina la jàppale nga koy fay ci sa kër ndax yow yaa ngi liggéey tu es une femme seule wala un yooyu yëpp lay am Europe mais emploi ces ces travailleurs sociaux leur production de service n'était pas euh, prise en compte loolooy andi changement de base parce que société bi day évoluer bu ñuy xool ne. dañoo def changer base parce que le PIB la dette sur le PIB non wala yooyu toppatawuñ ko. xanaa tombé waral ay gaaf. parce que banque mondiale yëpp ñu ngi alerté sur le taux. non non non ak FMI justement ñoo ne ñu yéen seen économie bi dafa changé de trop su man wóor na ma ne suñu PIB bii li ñuy wax ëpp na ko. amul risque fu mu non xoolal suñu PIB bi ëpp na ko parce que secteur informel bi ngay wax. Hmm. noo koy capté dëgg dugal ko ci PIB bi. gis nga dañuy wax ne ci économie. quand le bâtiment va tout va xool nga jël nga péage bi autoroute à péage nga génn Pikine di dem woo boori Diamniadio ba ci aéroport bees bi. mais kan mooy gis nga gis nga. kan mooy tabax gis nga ñaata kër yu bees la ñuy tabax. kan mooy tabax. mais mm, dama lay laaj Parcelles Assainies Kër Massar ku fa dëkk ay chinois. mais sénégalais yi koy tabax ñoo ko moom. fu ñu xaalis bi ci seen liggéey seen ñaq. donc loolu li li di wax ak le secteur réel les faits am na différence. yéen a ngi fay at bu nekk 70 milliards. non mais ma ne bu ñu ko mënuloon woon ñu ko fay. te fu mu toll ma ne mës nañu am défaut te ñu ngi dem ci élection ñëpp xam nga xam nga ku nekk xoolal ku nekk ak sa ku nekk ak fi sa bët yem. Hmm. su fekkee yow sa yéene ci réew mi dafa tuuti nga yemale sa politique d'investissement ci lu tuuti yéene président Macky Sall ci réew mi moo rëy. ndax moom day liggéeyal ëllëg moo tax mu ne damay andi teer moo tax mu tracé àll bi xotti ko def ci autoroute bu bees Ila Touba man bari ki dem yaa trois jours maa nga woon Vélingara ak Ferlo mais bi may àgg Linguère dama ko yëg dama si gi ñu ne ma Linguère ma daw continuer noonu ba jege Ranérou Diatta dem wala Vélingara Ferlo. est-ce que dootoo yéen ñaar rek. dama lay wax rek dama lay wax rek <laughs> donc pour wax la ne. ku nekk ak sa ambition bi nga am ci réew mi président Macky Sall nag moom. bu ñuy jënd abion sax buy dem Paris ba gën la bëgg pour sénégalais yi ndax sénégalais yi ci dugg ñu ñii ñoo ci dugg. donc ku nekk ak sa ambition dette il y a la bonne dette et il y a la dette boo xam ne danga koy consommer bu ñun nii rek waxuma macro microéconomie Cheikh man ak yow ku ci nekk boo sa congé jotee bu la neexee nga dem sa banque leb boo lebee ca sa banque loo demee congé ànd ak sa soxna nga dem Las Palmas wala euh, Casablanca ngeen noos fa kontaan ñibbisi boo ñibbisee boo dawalee weer ñaari weer ñu dagg la dagaat ngay fay bi di nga ko yëg. Mhm. di nga réccu sa vacances yi. kon du ma ñaan gaaw a ñaan conseil loolu mooy loolu mooy dette boo consommé mais nga dem lebi tabax kër feetoo luyaas mu wàcc la nga regle sa problème mu kër boo toogee sa kër bu weer deewee même booy fay bu avant luyaas nga daan fay perte tey ngay fay moom sa kër ku ëmb sa sanqal ëmb sa sutura donte sa jabar fondi la la defal. di nga fier moom it dina fier loolu mooy la dette qui va à l'investissement ba tey nag ñu ñu def benn transition bu facile parce que aussi gis nañ ne candidat yëpp euh, ñuy xëccoog yéen réew bi ñëpp ñu ngi def maanaam taxaw saytu ci li nga moo di contrat yi ndax nee nañ vraiment contrat yi ngeen di signé ce sont pas des contrats clairs ba bi ngeen signé sax ak Mauritanie kenn xamul lan mooy continue bi gis nga loolu dama ciy tontu leen hmm. candidat yi euh, député Cheikh Seck wax na bugguma ci sax dellusi si parce que <laughs> dañuy dem meeting jurbel mu ne président na sa xel dal ndax benn candidat fi nekk ñaari tokaar ak ñaari ambassadeur moo ko wax nag waxuma ko <laughs> après bu expliquer ma ne kii Cheikh daal moo mën a sànni xeer mais candidat yi effectivement am na xëy na ñaar ñoo xam ne dañ cee bokk di gunge am na président Macky Sall di wax ak peuple bi ak ñaari candidat yoo xam ne peuple bi la ñuy waxal ak yeneen candidat yi moom premier ministre xëy na la ñuy waxal toj naa Gosaas ak yooyu ñoom Gosaas la ñuy yem. ah sauf sànni nañ la ay xeer <laughs> normal sama sama mag la. <laughs> xoolal. dama ne ñaar ñi fa ñaar ñi candidat yi nga xam ne. ñoom ñooy xeex ak président. dama ne bala ngay wax contrat secteur privé monde bi lu ko yore stabilité nit ku stable mooy mën a incarner la stabilité benn ci ñoom ñaar ñooñu candidat yooyu démb dégg naa ko Richard Toll bis bu nekk industrialisation industrialisation nee na bu toogee day tëj CSS mi ngi ci presse bi tey kuy tëjee industrie bu ñu fi waxati industrialisation ñaar lu mu wax fleuve Sénégal ci biir réew mi la bokk Abdou Diouf dafa daw Abdoulaye Wade lii Macky sàll lii naar yi damay dem song leen moo ko wax yow nekk goo chef de groupe parlementaire amoo di député ngay woote guerre ak Mauritanie kooku kay bu nee dinaa xoolaat contrat yi dinaa def lu ko ma neex dana wax lu ko neex mais kooku réew mi duñ ko ko jox peuple bi du ko jox ndax peuple bi stabilité ak dal la bëgg. mais contrat yi du constat. ma ne waxuma contrat yow kay waxoo sax ne contrat bi ñuy signé ak Mauritanie waxoo ko da nga ne Mauritanie d'abord man dama ragaluma leen dama leen dem song leen président yi fi nekkoon dañoo ragaloon Mauritanie dex gi sax ci beneen côté bi ay sénégalais fa dëkk yow toogoo ko ngay woote guerre. ko kay bu ko neexee bu xooli contrat UNICEF ak Mauritanie ndax raison lay wut pour guerre ak Mauritanie. est-ce que réellement il veut la guerre aussi. ma ne guerre daal moom ci dëkk yi suñu Afrique yi nañ fàttaliku guerru Mali ak Burkina bañ déparé ñëw ba ci ci yoon mi seeni camion kale. gis nga euh, ñun ay nitu jàmm lañ ak stabilité bon voisinage diplomatie président Macky Sall ci nguuram ah astafirullah yàlla moom nguur. ci toogaayam la Sénégal dugaat conseil de sécurité pour la troisième fois ñu battre sax Japon ci euh, nombre réew yi ñi ñu ji pare loolu ñu jox ñu conseil des droits de l'homme bañ présider la ko ndax nit ku stable la li ñuy xool ci njiit du kuy dóor sa dënn contrat bi dinaa ko kii CSS li mu fi nekkoon dañ koo defal ay rente di dóor sa dënn. mais pour un souci de transparence est-ce que waroon contrat yëpp lañ publier benn contrat amu fi. yéen lu tax wane wuñ mais mu dem assemblée ah ma ne peuple bi kay <laughs> moo voté gis nga euh, ku nekk ak li la intéressé. loolu bu la intéressé document yëpp mu ngi ci net bi c'est publié yi dem assemblée ay loi ak yëpp parce que la la contrat bañ fa signé kay loi la génn après gis nga euh, Mauritanie dara amu ci Senghor ak Ould ak Mali président euh, bi fi nekkoon ca jamono ya euh, du Modibo ah am naa trou ba ñuy créer organisation des états riverains du fleuve Sénégal dañu ne fleuve bi ressources yi dañ koy mettre en commun ci lañu noonu la ñu amee Manantali am ci barrage u Diama am ci euh, irrigation ñu créer organisation des états riverains du fleuve Sénégal ba loolu moo andi tey OMVS nekk modèle boo xam ne yëpp monde bi yëpp dañuy ñëw di jàng si nan la ñuy gérer mutuellement entre états ay ressources yu ñu bokk. bërki démb de gis nañ fi Éthiopie ak Soudan bëgg a guerre ndax la Nil ñun loolu esprit père fondateur yooyu foofu la président Macky Sall toll. fii président Abdou Diouf ci jamonoom génne nañ fi pétrole brut bu luur sax pétrole luur la ci Guinée Bissau ñu nat cour euh, bi nga xam ne moo yore lépp luy droit de la mer ak euh, ci monde bi au niveau du système multilatéral ne Sénégal moom moom ressource bi yéen a koy fàttaliku. mais Guinée nanguñu ko woon. mais booba ñun du nañ ne ñoo ko moom Guinée yi dañoo porter plainte ONU daaneel leen ne Sénégal ko moom mais président Abdou Diouf lu mu wax ñu mutualiser ressources yi parce que euh, su fekkee ressource bi da nga ne yaa ko moom mun nar a andi guerre ngay la ngay perte ca guerre ba moo ëpp te dëkkandoo euh, euh, nee nañu dina gën doomu ndey ki ki la yàlla booleel kay ngeen dëkk mënoon ngeen nekk même réew ku nekk am ay mbokk fu nekk ci réew mu ci nekk ngeen juboo moo gën. c'est que coowul pétrole ak gaz dafa bëri benn coow amu ci. donc fii te dinaa ko expliquer. fii lii génn ñu xayma ko mu nekk ci biir ndox mi ñu ne ah ni mu tombee de Mauritanie am na ci lu bari Sénégal am ci te daanaka cinquante cinquante la. te bu ñu fàtte ne ñun gaz bi ñun feeñ léegi ñu woon soo demee ca kaw Mauritanie moom Banda le puits de Banda feeñoon na ba confirmer gaz foofu et loolu moo tax nit ñi wàcc ni ah Mauritanie bu amee gaz bu toll nii de Sénégal xëy na am na ñu commencé gën a ñëw ci ñun ba suñu gaz boobu ñu bokk feeñ dañ fi indi coow lu dul jeex président ne waxtaan ak président Mauritanie. ñu pare ku nekk yóbbu sa assemblée assemblée ba voté ñu ne dañ koy mettre en en commun wante juróomi at yu nekk ñu évaluer bu ñu tàmbalee juróomi at yu nekk ñu évaluer bu ñu évaluer bu fekkee Mauritanie ëppale Mauritanie euh, ñu ñu régler loolu bu fekkee ñun ñoo ëppale ñu régler loolu donc loolu lu ciy coow fii pétrole bi fi génn Sangomar pétrole la. moom it 2021 mu génn waxuma gaz de pétrole mais li fi génn Sangomar ku ko moom Sénégal bokku ko kenn mhm. séddoo wuñ ko kenn. Mhm. mais jox ngeen yëpp yi de monsieur. Kay Kayar nee nañ jox ngeen yëpp tubaab yi de. ba sax ah, ah, Thierno Alassane Sall bokkuñ ci gouvernement. looloo taxoon président dàq ko. waaw moom dafa dem ngeen c'est un faux débat. man du wax ak Thierno Alassane Sall. fii li may ki may waxal mooy. Hmm. président Macky ndax. Euh, fii du premier ministre gis nga sama cap bi président mhm. Macky Sall li mu liggéey laay wax mhm. ci campagne bi mhm. ci campagne lañ nekk pôle programme laa yore euh, su ma summee sama casquette sol casquette premier ministre ma wax wax mbiri gouvernement mais gaz bi ak pétrole bi dara newu ci joxuñu ko tubaab yi societé yi géré tubaab xam nga tubaab mooy fii dañu naan ku weex walla français il faut mu leer. gaz boobu gaz boobu ci kaw gaz boobu ci kaw bi feeñ ñu bokk ak Mauritanie benn société française bokku ci BP BP BP fu mu dëkk du Angleterre. Cosmos fu mu dëkk du Amérique. ana tubaab yi yan tubaab mooy loolu wala euh, France la ñuy wax. am na benn société France comme mu am société bu Chine ak yeneen société yeneen réew yoo xam ne ku ci nekk yaa ngi saytu feeñalaguloo sax dañuy ñëw géej gi ni mu toll yàlla jox ñu ko comme suuf si dañ koo dagg ay périmètre comme ni mu amee région noonu la amee ay périmètre tam dañ la naan ah waaw le offshore am na am le offshore profond l'ultra deep looy gën a sori ci géej gi dañ la naan yow da ngay ñëw ne damaa bëgg ñu xool appel d'offre nag amu ci ñu koy wax amul ça n'existe pas code pétrolier bu bees bi la ñu xool ay possibilités mën a di def appel saxaar parce que kenn daaw fi ñëw depuis 60 ñaata milliards la fi gars yi dugal mu suux ci géej gi nga ñëw bato bi seet rek 500 millions nga koy fay bés nga def ci sa 200 300 milliards mu jigi delloo permis bi Sénégal ñibbi ndax dara amul yow nga ñëw taxaw ne. dama bëgg ngeen jox ma ci ultra deep bi ndax fii kat euh, comme euh, anglais yi ak américains yi ñoo ngi bii côté xëy na ngeen jox ma ca gannaaw BP mut anglais bi ne dama bëgg ngeen jox ma ko manit président ne BP duma ko jox lépp àddina wóorul su nekkoon totalit duma ko jox lépp àddina wóorul bu nekkoon société russe duma ko jox lépp duñ jël géej gi yëpp jox ko benn société addina wóoru société bi dina lu mujj téye ñu ne nañ ko jox beneen societé xëy na nag am na ñoo xam ne ñu nekkoon ci gouvernement bi jóge fa xëy na ñoom mu nekkoon BP moo leen arrangé foofu laay yem <laughs> il faut clarifier monsieur coow yëpp loolu ah. kon dañu am ay intérêt ñoom waxuma ko ah damaa sol casquette bu ma nekkoon bu may def confé su ma hmm. nekkee su ma solee sama casquette premier ministre def conférence de presse man dëgg laa ma génnee lépp. waaw monsieur le premier ministre seen gouvernement parce que dafa di kii waxtu bi moo ñu ko euh, Serigne euh, ñu ñu ngi leen di citer aussi tamit ci li nga xamante ne moo di terme de transparence de bonne gouvernance ñu ne dese ngeen ci lu bëri. jëm na sax ci wàllu justice ñu mais mais Cheikh du ñu wax ci programme sama patron. <laughs> yëpp ci programme ñu wax ci sama sama candidat li nga xam ne moom la nar a def. liggéey loolu defe naa ni. mais mais n'est-ce pas ce programme ce candidat. sénégalais ce candidat moom moom moom ci ci. non yow bilan ngay wax. waaw nañu wax li ci kanam. <laughs> bu too bu yàlla dimbale bu too bilan bilan bi kay dañuy xool li ci nit ñi xaw a li ci sooxee li ci nit ñi wax ne. mooy sooxe mais li important loolu carte yi dina ko wane. Mm-hmm. mais yi lan mooy yéeneem ci réew mi liggéeyal ëllëg bi mu woote lan la démb kay di ñëpp dégg nañ ko barki démb dégg nañ ko mi ngi campagne boobu léegi fu mu dem peuple bi topp ko. defe naa bilaa bi kay nit ñi yaa ngi koy gis. waaw moom bi. moom nee man li li li ma dégg. li ma dégg li dégg dem président wax ko. lu mu wax. nee na il va créer un million d' emplois. waaw. est-ce possible. Ah, pour une durée. ma jox la quinquennale ma jox la. président dafa ne. bu ko yàlla dimbalee mu toog emploi vert lépp li nga xam ne moo jëm ci reforestation ndax wax na ko ba tey at mu nekk bés bu nekk fi mu nekk nii bés bu nekk lu toll ci ñetti téeméeri terrain football désert bi dina ko jël ci suñu réew loolu bu continuer fii ak benn génération réew mi dootoo am foo bay boo amuli garab sa taw dina wàññeeku coupe de bois bu taw ñëwul a ah, doo am loo lekk loolu président ne génération yi ñëw d'abord il faut ma jàppale leen ba nga xam ne buñ ca tolloo dinañu am ndox di am lu ñu mën a lekk di bay donc mu ne dinaa taxawal agence sénégalaise de protection des forêts boo xam ne reboisement ak protection forêt yi la loolu président génne ci cinquante mille emplois ci mandat bi ñëw notaire cinquante mille. cinquante mille emploi ci mandat bi di ñëw. waaw emploi vert. Mhm. notaire ñaar président ne li may liggéeyal xale yi ci dak yi les domaines agricoles communautaires. Mhm. investir ci am na lu ma ci def. dak moom doxul tellement quand même. ngi dox. Mhm. waaw ba boo demee ba ba dem ba euh, Sédhiou ba fa ne mille xale nga fa nekk ay am ay euh, GA groupement d'exploitation agricole. Kër Sampakat. dañ ko doog a tàmbali donc programme la président soo ko déggee léegi internet gis ko gis ministre Amadou Ba ministre de finance di signé ak banque islamique de développement mu financé lu ñeenti dak yu bees ñeenti dak yu bees yooyu di nga gis ne programme bi niñ ko tërale ba ci dans le Linguère am na benn fa côté Fatick am na benn euh, euh, Kaffrine ñeenti dak yu ak euh, dak bu bees bi ñuy def fii tam ci sangal kam ñeenti dak yooyu trente mille emplois la nañ noté booleeg cinquante mille yi muy 80. bindal rek ça c'est des c'est des prévisions il faut. pas des prévisions. parce que xaalis la boo xam ne déet ka ma ne bu ñuy demee bu kay. Hmm. war koo tracer équipé ko. génne ci 30 000 parcelles yoo xam ne bu ci nekk benn ko nekk cay liggéey di ca bay parcelles yi xanaa duñ ko aménager ba pare bañ koo joxe donc ba de du ay prévision loolu kay boo gisee contrat bi nga xam ne moom lay signé ak banque islamique. boo weeree woon léegi sa internet nga gis ko di nga gis ministre des finances signé ko ba nga koy signé daaw pour loolu la décaissement yaa ngi ñëw ñu ñu tàmbalee liggéey loolu rek dak yi waxuma dak yi yi fi nekkoon yu bees yi ñeenti yi mille jeunes la concerné nga jël ñett mhm. zone économique spéciale yi li ma doon wax ci industrie fii mu nekk président wu Chine ñëw na fi président Macky Sall waxtaan ak moom ñu juboo deuxième phase bu parc industriel bi mi ngi ñëw ñoo ngi tabax foofu sur lu mat total bi dina ëpp cinquante hectares nekk batiment bi may wax fii ñiy ñëw rek benn batiment bi ñuy ñëw trois fois huit lay liggéey sept mille mètres carrés la moom ci boppam mais dix mille jeunes fay liggéey à terme benn usine en trois fois huit usine bi fi nekk nii la même mi nga Éthiopie dix mille jeunes éthiopiens ñoo fay liggéey Eastern Industrial Park bi nekk ci Addis kooku ci sama liggéey man. bu yàgg ca ONUDI ci ñi ko liggéey laa bokk. donc bii it euh, bi ko président xalaatee man ak ministre de l'industrie ñoo ci liggéey ba mu sotti dans le secteur industriel. avec les délocalisations rek le le chiffre qu'on a c'est deux cent cinquante mille emplois booleel ci sa liste booleel ci sa yaa ngi trois cent trente mille <laughs> déjà noonu la ko président tëbul ne damay def un million de président actuellement suñu économie mi ngi croître quatre vingt mille emplois par an moom laa leen expliquer sànq toutes choses étant égales par ailleurs fii mu nekk chaque année entre lii ñi retraité ñu leen di recruter muy secteur privé ak état programme euh, sage-femme yi président par ay mille lay jël pour jigéen ñi. sage-femme moom le nombre jusqu'à aujourd'hui il faut mu yokk moo tax mu def programme spécial mille euh, daaw mille lañ jël sage-femme. pour mu mu wër réew mi te dañuy dolli enseignants yi dañuy wax abri provisoire mais enseignants yi li leen sonnal dëgg mooy quantum horaire bi ñu war a joxe y a pas assez d'enseignants te pourtant on en a quatre-vingt mille presque euh, ci ci fonction publique mais pré renouvellement plus pour accéder pour am l'accès universel ci njàng. Mhm. mais li ñuy li état bi di jël foofu di ko jël ci force de sécurité yi ndax suñu réew stabilité d'accord mais paix moo moo moo tax stabilité am président li mu investir ci sécurité réew mi benn président mosu ko fi def benn président mosu ko fi def dans le cadre du programme loolu yooyu programme duñ koy wax ci witti ndax secret défense la détail bi mais on a il a le programme bi mu toogee la créer programme armée 2025 génne une stratégie liggéey ko ñi ngànk euh, mbiru sécurité force de defence de sécurité moom la ñuy doxal bi muy ñëw ñaata bateau amoon militaire tey ñaata am dañuy toog défilé di ko gis bi avion de combat réew mi am na ko actuellement xanaa yi mu commandé yi yi ñëw <laughs> bi muy toog moom amul bi muy toog Casamance gi jàpp nañ fa ay ay soldats ay weer sax ñu nekkoon euh, des otages mais ñooñu dàll sax duñ ko woon am yu baax président dafa aar réew mi moo tax bis bu nekk ngeen defee ne maal Mali mën naa yore situation bi mu yore te ñooñu fa nekk borom sikkim yooyu jéemuñu dugg ci réew mi mm-hmm. lu tax ñuy nelaw ñun guddi suñu armée ak force de sécurité yi président équipé leen donc programme spéciaux yooyu mu yore pour recruter dolli armement bi dolli équipement yi dolli également nit ñi. fas yéene def ci Casamance parce que ñëpp ñu ngi wax PEP. mais mais Cheikh ma terminé. dama ne ñoo ngi ci emploi <laughs> boo donc ñun état li président di jël service yi soo jëlee secteur bu mel ne cadastre le président est en train de faire une réforme foncière. inspecteur du cadre yi nekk ki réew mi yëpp matuñu 30 y a des secteurs qui ont été abandonnés ici pendant longtemps par le régime précédent président di leen capacité pour réew mi réforme yi mën a dox mais boo nattee loolu yëpp 80 000 emplois la actuellement 50 du 400 000 booleel ci sa liste mm-hmm. ma continuer mais un million bi président daf koo xayma liggéey ci ak ñi mu ci war a liggéeyal ne dina créer un million d'emplois te loolu hmm. c'est avant Euh, euh, euh, le contenu local. mais waroon wax tamit ci Casamance c'est important. avant ngi ñëw avant le contenu local. Hmm. waaw c'est-à-dire avant le pétrole et le gaz qui arrive et son contenu local. donte dégg naa seen candidat quand mu ne quinquennat bi da koy jagle exclusivement la jeunesse. oui waxoon na ko keroog fële ca Diamniadio Euh, ci keroog journée d'investissement bu indi woon coow lu bëri loolu d'abord euh, ñaari question la ba ca njëkk mooy damay damay laaj d'abord euh, pourquoi a-t-il décidé quand même mu jagleel quinquennat maanaam xale yu ndaw yi xanaa dafa jàpp ne quand même bi affaire dafa am ay sooxe yu bëri. non non non non président bëri jotoon na ko teg. non président def na lu bari pour jeunesse bi maa ngi doon rappeler léegi c'est quatre cent quatre-vingt-onze mille emplois mais président dafa ne liggéeyal ëllëg la woote. liggéeyal ëllëg c'est pour la jeunesse mandaam bii di ñëw dafa bëgg liggéey ndax bii mandat passé rattrapage la ku ñëw fekk fi 1 point 7 réew mu fayit xalaatoo suba population bi yokku fu dëkkuwaay yi mooy autoroute yi muy defar di tijji dëkk bi aménagement du territoire président ñëw ne naa rattrapé y a eu beaucoup d'investissement de li ñuy wax hardware mooy li nga xam ne béton bi loo mën a laal liggéey nag ci jàmm jeeg sécurité bi mais loolu xëy na nit ñi dañ koy fàtte liggéey it même ci li ngay laal hmm. ci biir suuf si ñaata milliards la ñu dugal pour assainissement tey mi nga géej a géejawaay na Gounass Sam Notaire mais kenn dafa mën a daan dem bu yàgg ba bu nawet loolu nit ñi fàtte nañ ko Touba Gale Bambey Kaolack mais mais nit ñi dañ koy fàtte mais li mu liggéey ci assainissement donc président dafa rattrapé. Ah. sage-femme assainissement tubaab sage-femme y en avait pas assez par mille lay recruté police chiffre bi boo xamoon li mu nekk do di nga di nga di nga di nga di nga am ye yeeraange tuuti. li mu fi fekk seen adversaire yaa ngi sànni xel de non non non bi banlieue bi bi soxla nañu ay commissariat dem président wax na ko douze bi ñu fay tabax. soxla nañ ko pour sécurité. Mhm. dëkk bi lëndamaay gi fi nekkoon moo tax président commandé cinquante mille lampadaires pour que sécurité nit ñi te loolu duñ ko wax président dafa rattrapage rattrapage la def mu ne bii nag su ma ko yàlla may ba ma réew mi dénkaat ma direction damay liggéey pour ëllëgu réew mi ëllëgu réew mi mooy. Mhm. tey damay joxe rek benn chiffre waxuñu ñuy voté de jeunesse bi dafa bari segment les sénégalais qui de zéro à quatre ans dix-sept pour cent population bi la ñu am entre zéro et quatre ans mooy premier quintile bi il y a huit virgule six pour cent de jigéen huit virgule sept pour cent de góor ou l'inverse soo ko additionné yaa nga dix-sept daanaka presque benn sénégalais ci juróom day nàmp loolu ñooñu suba war nañu mën di dem ay école am ñu leen di jàngal am santé moo tax mu ne zéro à cinq ans hmm. médecine gratuite doo fay ñooñu suba war nañoo mën a am di déplacé wu looloo tax muy liggéeyal TER bi suba war nañoo mën a am lu ñu lekk ndax mi ngi taw dëkk bi verte seen cadre de vie ñooñu war nañoo am fu ñu mën a dëkk moo tax mu ne 100000 logements sociaux ci sama programme bu bees loolooy liggéeyal ëllëg waxuma nga toppaat ca ña ca topp mat nañ quinze pour cent entre cinq ans et 9 ans. Parce que... donc population bi suñu population bu ñuy wax jeunesse bi temps la ñu na ñu xool d' abord ñi nga xam ne sax moins de quinze ans la ñu am. xam nga ñooñu ku leen di liggéeyal tam xool ca loolu ci vote dama ne président liggéey mi moom suba lay liggéeyal jam ñaajo pôle pôle pôle bi mu tabax jam ñaajo mhm. bi mu créer amul bureau de vote kenn du fa voté amul bureau de vote vision la loolu sinon day def ni gaa ñi daan def ah fii kak bari nay électeur naa jël lépp xëpp fa ay mallette jam ñaajo c'est pas un mauvais choix mauvais choix ci lan non c'est-à-dire xam nga on a on a on a voulu créer une nouvelle ville Et là, c'est presque à la porte encore de Dakar. Est-ce que, monsieur le Premier ministre, Khalatone, ci Kanam, effet de saturation encore dina am au niveau de Djamnyadjo Mais il fallait que d'abord nous aérions de Kibi. Non. Aéroport Am à cinquante km de la capitale. Le président Nitidi Kibi n'a pas créé pour. Parce que, si l'aéroport bi, de mujj bañ ko ba ko tubaab yi di def booba àll la mais dafa mujj dëkk bi lekk ko ba ba mën ba amatul sécurité moo tax président ñëw def ko foofu ci digg bi mooy dëkk bi ñu fi njëkk a tabax it nag boo xam ne mi ngi mi ngay xool mi ngay xool ca biir réew ma ndax da nga xool tubaab yi dëkk yi ñu fi def ndar ba kafuntin lépp ci booru géej gi la président mënoon naa dem ba ba Lompul mu def fa dëkk taf ko ci boru réew mi. Hmm. dafa génn Dakar. Hmm. buy xool ci biti. di xool ci biir réew mi. loolu la def loolooy mais ni mu ko defee fii cent mille logements yi mu def mais yeneen dañuy tabax feneen ci biir réew mi bërki dem gis nañ ko fa Fatick muy inauguré HLM. HLM mi ngi yore programme boo xam ne président leen ko wax pour habitat social soixante quarante cinq. dans les quarante cinq départements du pays bu ci nekk ñu tabax ci au moins soixante logements sociaux bu fekkee ki dira nga nekk bari na ay euh, diaspora du doon soixante ñu tabaxal leen cinq cent bu fekkee demande bi cinq cent la boo demee euh, Jolof bari nañu Louga bari na ñu jëkk ci biti ndax ñooñu sénégalais yooyu mën a am seen logement diaspora bi ak ñi nga xam ne it seen doole néew na. monsieur le premier ministre certes am na loo xamante ne gars euh, waxtaan dëgg la c'est un constat qui a fait maanaam da ngeen ñëwee ci nguur gi ba léegi. gis nañ ne de à 2017 am na quand même accalmie en Casamance loolu ñëpp seetu nañ ko waaye est-ce que foofu rek la war a mën a yem wala de parce que pour askan bi dana d'accord certes ñu ngi dans une situation de paix nii nii nag ñoom nañ xam yéen nan ngeen leen fas yéene jagleel pour que ñoom tamit seen dox seen gox boobu mën a suqaliku suñu candidat li mu ci wax leer la di président Macky Sall moom dafa ne jàmm développement mënta am te jàmm amul pas de développement sans paix am nañu ne il n'y a pas de paix sans développement mu ne ñaar ñëpp dinaa ci liggéey jàmm ak développement bi mu toogeek léegi pour promouvoir jàmm moo fi andi dañuy wax PUDC mais PUDC am na ma mu ngi tudd PPDC dégg naa benn candidat naan day créer ay pole de développement man ni déet mi ngi ci mbir mi di mu keneen beneen candidat ne anglais dama koy andi primaire man ni déet président nee ci programme am dina andi anglais andi informatique pour préparer xale yi au andi histoire. c'est bon ça histoire histoire du Sénégal bi nga xam ne mu ngi ci programme bi ñu bind ko. gaa ñi kat dañuy parfois. Ah, yër tuuti ci suñu programme. c'est histoire bi mu oh. dénk professeur Iba caam ak équipe bi ko yore. di histoire u Sénégal boo xam ne ñun ñoo ko bind ñun sénégalais yi président nee na ak bu Afrique dafa bëgg xale yi di ko jàng pour citoyenneté yokku pour panafricanisme yokku loolu parce que connais-toi toi-même le philosophe yi wax loolu c'est important président dafa ne. Casamance PPDC andi ay investissement massif li ñu investir Casamance ci at yi benn gouvernement mosu ko fee def andi tam ne Casamance mooy sama région de cœur ba ci avion bi ñu jënd sax Casamance lu tudd ba ñu ne dañuy monte Air Sénégal dañu ne nañu njëkkee ci avion yi dem Casamance te bu muy toog presque daanaka amatul woon léegi ñaari vol Air Sénégal rek ñaar lay def. am na beneen compagnie privée ñaar ñeenti avion par jour avant lañ daan fay pour aller léegi ngay fay aller retour ma dellusi donc ci sànq sa question boobu nga waxoon ci prix accès aux infrastructures yi président moom dina garantir ci lépp muy Ila Touba di lépp dina garantir TR accès peuple bi à ces infrastructures ndax ñoo tax mu koy mu koy def Casamance li président liggéey na ci dialogue politique ak cadre Casamance yi du wax lépp mais surtout li mu wax keroog Casamance ba mu fa jaaree Ziguinchor dans son discours euh, vraiment historique ki a commencé d'ailleurs par un chant un hymne qu'il a offert à la Casamance dafa ne bu ma toogee en plus du renforcement du, du processus de développement et d'émergence, je prendrai de nouvelles initiatives politiques vis-à-vis de mes frères et de Casamance initiative politique yooyu nañu xaar ba jot ba àgg ca. Serigne dafa mel ni am loo bëgg a laaj ci politique bi de. waaw non non man kay je voudrais li ma ko laajoon sànq rek wax ko ne ko ñoom seen bilan wax dëgg yàlla boobu ba léegi lu mu fi déroulé lépp tout est en vert mais nag bilan bi am na lu ci xaw a sooxee bilan bi lan moo ci sooxee monsieur le premier ministre. non lépp nekkul en vert parce que am na secteur yoo xam ne euh, waroon nañu gën a mën a def euh, te loolu ci la ñuy liggéey fi mu nekk fas yéene ci gën a liggéey euh, président homme de dialogue la woote na plusieurs fois dialogue gars yi parfois suivre ñu donc defe naa ne déjà. dans la création de la relation de confiance de tous les fils de ce pays ndax réew mi ñun ñëpp ko bokk. foofu xëy na war nañu gën a mën a euh, euh, joxe davantage pour que nit ñi ñëpp mën a mën a ñëw ci booru table bi ñu waxtaan. ñun président pour tàccu il faut nga nekk ñaar moom def na lu mu man en tant que euh, le président de la république mais ñun gouvernement bi nga xam ne ñoo war a mettre en œuvre. war nañu ci suñu waxtaan suñu euh, liggéeyu bopp ni war nañu war a gën a mën a boole nit ñi au plan sectoriel ba nga xam ne bu président wootee ñëpp ñëw xëy na côté boobu ñun war nañu gën a ouvert te loolu defe naa ne en tant que gouvernement euh, waroon nañ ci gën a liggéey pour mën a gën a faciliter suñu kilifa le chef de l'État Euh, conditions yi nga xam ne euh, moom ni mu buggee l'inclusivité du du du dialogue euh, son ouverture puisse encore être mieux entendue euh, certes am na ñoo xam ne qui son à la marge ñoo xam ne du ñëpp ñooy ñëw woote na fi ci sur le pétrole réew mi ñëw na réew mi it du classe politique rek du c'est pas les trois grands partis qui font le pays c'est aussi la société civile suñu dialogue ak société civile bi ñun en tant que gouvernement ni leen war a gën a boolee ci ci euh, le débat l'espace public xëy war nañu gën a mën a tijjeeku. mais est-ce que loolu du gën a métti monsieur le premier parce que xam naa ci loolu la ñuy jeexalee fi mu toll nii. ndaxte seen candidat dégg nañ ko mu ne va passer au premier tour. est-ce que tamit bu loolu amee loolu du gën a indi affaire bi pëccuxoo parce que bon on n'a pas compris yow waxoon nga aussi cinq candidats la ñuy kàll am. vraiment gis nga loo diisal mu diis. Ah. Euh, loo oyofal mu oyof man bi may wax cinq candidats expliqué naa àdduna bi yëpp lu tax ma wax législative yi passé cinq listes ñoo fi am quotient quotient bi nekk euh, euh, à l'époque pour ab député il fallait cinquante cinq mille à peu près pour parrainage ñu laajte cinquante mille mooy zéro huit yi. ku amul woon parrainage barki de ku amul woon député barki de Mbodj yow amu mënoo am dix mille di dix mille électeurs nga am deux mille électeurs soo fi génnee tey euh, euh, cinq cent mille parrain réew mi war nañ laa laaj fi nga jaar man gëm naa ne politique génération spontanée càppaacoo li mënu cee am xëy suba rek ne cëpp mat sëkk loolu amul. ñoom nga ne sa candidat day mais moom laa gëm parce que sama candidat di ku fi wax ku fi wax waxu réew mi dëgg. ñoom lu ñuy wax. Macky Sall makki Sall makki Sall Macky Sall moom du tudd leen xuloowul waxul moom li muy wax mooy réew mi dinaa tabax cent mille logements sociaux pour yéen li may investir ci mbay mi dinaa ko yokk école bi dinaa dolli sama loxo ci investissement yi abri provisoire dek naa cent trente milliards dinaa ko accélérer DER bi délégation à l'entrepreneuriat rapide trente milliards lay joxe par at dinaa xool nu ma ko gën a mën a yokkee pour xale yi ak jigéen ñi gën a mën a développer li nga doon wax les 92 pour cent là l'entrepreneuriat social et loolu suba c'est le terreau pour les grands entrepreneurs de demain président Macky Sall loolu lay wax CMU bi taux bi mu toll dama koy yokk couverture maladie universelle mais mais pour que plus de 60 pour cent des Sénégalais 62 pour cent mën koo am donc président moom peuple bi lay waxal peuple bi nag xam na njariñam lu leen dese. Macky Sall Macky Sall Macky Sall léegi fake news. Abdoulaye Wade dégg léegi fake fake news. fake hmm. news mooy leen dese c' est ah. important fii ak dimanche di ngeen dégg lu ne. Abdoulaye wax na ak Macky ma ne ma ñëw rek Cheikh Cheikh ma ñëw luy lu important la. gaa ñi comme xam nañ ne. ñàkk nañ ba pare fii ak de fii ak dimanche façon waxin bu nekk di nga ko fi dégg di nga dégg lu ne président lii jonn lee Cheikh Diaby lii. sëñ Saliou mi toog nii fii du dinañ ne sax du moom moo def interview bi seexam lañ fi yónnee. lu ne di nga ko dégg lu ne di nga ko dégg ay fake news la dañ ciy avertir nit ñi d'ailleurs ñun suñu directoire dañ génne communiqué pour wax réew mi attention seen laboratoire yi gars yi ñoo ngi préparé lu ne. Hmm. wante réew mi ñun wata waasaw bil xaq dëgg lañ gëm suñu réew. tijji leen seeni nopp bu baax luñ leen wax ci nit xam ngeen nit ka xam ngeen lam mën a def ak lam mënta def. Wade ak Macky daal jokkoo wuñ benn yoon ci téléphone. mais Wade ak Macky y' a pas y' a pas de problème ma euh, euh, le président Wade ñun respect lañ ko jox mais il n' est pas candidat nous on pas ñun fii mu nekk nii man candidat yi di def fake news yi ñooñu lay waxal. Mm-hmm. candidat yi nga xam ne amuñu benn programme lu dul. ŋàññi Macky Sall man ñoom laay wax. société civile mu ngi ñëw seet si na. mais société civile seet si na ma seet si na président Wade day seet yeneen candidats yi man de leen lañ ma andil. kayit goo xam ne dañuy engagé wu ne euh, suma mu euh, mu tuddati que suñu candidat na engagé wu comme yeneen candidats yi pour violence du am man dalal seen xel ne leen violence du fi am. ndax suñu réew réew bu organisé la dinañ jël tam au niveau de l' état les matuwaay yi nga xam ne. dinañ sécuriser vote bi te peuple bi dina ci ànd ak ñun man de Gossas géem a dëkk ku fa ñëw ne da ngay saboté vote bi di nga parce que gars yi duñ la bàyyi nga def ko gars yi dañuy yeewu suba dem voté ji Matam nga dëkk wala Podor wala fan Cheikh Ndakaaru Njaay gi mais sa zone bële <laughs> gars yi fi caravane yaa nga fa bis bu nekk hmm. mais peuple bi di leen topp ci candidat yëpp mais ñëppay voté ji jërëjëf monsieur le premier ministre ngeen jëf maa ngi ñaan loolu laay jeexale di ñaan classe politique bi yépp di ñaan sénégalais yépp euh, di rappeler ne nguur mbir yàlla la man loolu laa gëm lii ñuy dugg yàlla nañ ci dugg ci bismillah rahmaani rahim ak jàmm et que le maire gagne soxlawul coow soxlawul xeex soxlawul xuloo euh, campagne bi ba léegi civilisé la def am na fi événement yu am ñëpp a koy déplorer Euh, ca Tambacounda mais loolu léegi ci loxo justice la nekk donc kenn du ci wax ñëpp déploré nañ ko euh, ñi nga xam ne ñooy candidats yi ñoo ngi def seen campagne de manière civilisée ku nekk sa programme su fekkee am nga ko moom ngay wax soo amul programme nga ne Macky Sall bu la neexee wante fi ñu toll nii li ci des defe naa ne mooy ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahim le peuple sénégalais aussi à droit à exprimer sa parce qu'il s'agit d'un rendez-vous républicain et qui est garanti par la Constitution. Donc, on va voter, Inch'Allah, dimanche. Je peux vous assurer, euh, rassurer que dimanche, le vote se passera dans les meilleures conditions parce que l'État du Sénégal a pris toutes les mesures et le suffrage des Sénégalais sera respecté. Je vous remercie. Merci. Voilà, merci cher. Merci aussi, Monsieur le Premier ministre. jërëjëf jërëjëf monsieur le Premier ministre kontaan nañu yow mi nga xamante ne yow yaay coordonnateur pôle programme bu candidat sortant mu di le candidat Macky Sall euh, tey nag ñu amoon taxaw seetlu tout ci seen bilan euh, maanaam dugg ci lépp nag wàllum koom-koom wàllum emploi wàllum politique wàllum justice lépp daal il fallait ñu wax ci na parce que Euh, occasion loon tamit pour jàkkaarloo yow waxtaan bu baax ci seen bilan ñu lay gërëm di la sant malgré ce temps bi nga am nga xam ne c'est très surchargé nga nangul ñu ko ñu def entretien bi ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax monsieur le premier jërëjëf Cheikh jërëjëf sëñ Saliou merci beaucoup téléspectateurs yi ñu leen gërëm di leen sant tey nag li leen leen indiloon ci propos de campagne ñi leen di wax